chers internautes comme ni ñu leen ko waxee depuis sànq ñu ngi fii di jëlal li nga xam ne ne moom mooy ay euh, quelques petits extraits yoo xam ne ne euh, pour gala bi nga xam ne moom lañ ñëw fi nii si King Fahd Palace ñu ngi fii nag ak ki nga xam ne ne moom mooy DG Dakar Dem Dikk j'espère que yéen ñëpp xam ngeen ko monsieur ñu ngi leen di bu baax di kontaan si accordé bi ñu accordé quelque merci beaucoup maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñëpp yi nuyu tamit euh, sénégalais yi man may Ousmane Sylla directeur général d Dem Dikk te en même temps aussi donc ñu ñëw fii tey ci li nga xam ne ne moom mooy euh, gala bi nga xam ne ne dañuy ñu euh, euh, jagleel les cent entreprises les plus dynamiques de l'Afrique donc tey sa sa sa teewaay fii ci bés bi. waaw tey nag vraiment dañoo am mbégte bu rëy parce que bu ñu fi ñëwee euh, société bu nga xam ne ni mooy Ecofinance entreprise sélectionné Dakar Dem Dikk parmi les cent entreprises les plus dynamiques de l'Afrique nekk tamit ku nga xam ne ni vraiment rëy na si ñun rëy na si salariés yi mais rëy na si sénégalais yi ñu ngi siy rafetlu di vraiment di remercier son excellence le président Macky mais remercier salariés yëpp loolu nag lu ko waral tamit parce que nit ñu ñoo liggéey salariés yi liggéey nañ bu baax baax wone nañu Dakar Dem Dikk du ñu ñoo ko moom ñun ñëpp la kenn rek moomu ko mais alal réew mi la te askan wi soxla nañ ko te incha allah ñu ngi si taxaw donc lu may nee rek sénégalais yi nañ si gën a taxaw jàppale Dakar Dem Dikk parce que Dakar Dem Dikk ñoo ko moom te incha allah lu ñu gis ni tey mooy ni que entreprise Dakar Dem Dikk mu indee des meilleures entreprises ci Afrique de l'Ouest donc ci Afrique tamit donc loolu lu rëy la alhamdulilahi rabbil alamin waaw xam nga tey ñun Dakar Dem Dikk dañoo gëm ne ne Dakar Dem Dikk du pour Dakar rek mais pour Sénégal mais pour Afrique la parce que loolu la ne équité territoriale ku nekk ci Sénégal ku nekk ci Afrique war na gis boppam ci njëriñu Dakar Dem Dikk loolu moo tax te yaatal nañu euh, fu ñu war a nekk ñu ngi ci Sénégal gi euh, région bu nekk ñu ngi fay dem te incha allah département bu nekk dinañ fa dem ginnaaw loolu tamit si Afrique bi déjà commencé nañu Banjul dinañu dem Mali dinañu dem shot loolu yëpp mooy wane nii Sénégal gi mais loolu vision son excellence le président Macky Sall la si ginnaaw PSE bi loolu moo tax Dakar Dem Dikk mu ngi fii taxaw lu may ne incha allah di d'ici fin d'année dinañu am ay bis yu bees yu nga xam ne ni vraiment standard international la pour jàppale sénégalais yi dañuy duuble suñu flotte yi boobaa sénégalais yi du ñu am ay jafe-jafe pour di vraiment di di dox di dem di dikk si Sénégal gi mais si Afrique bi incha allah ñu gis ni nga nekk DG Dakar Dem Dikk waaye aussi nga nekk maire Kédougou est-ce que tey yomb na est-ce que li nga euh, taxawaayu maire bi nga war a taxawee biir Kédougou est-ce que dina mot ak liggéey bi nga war a def ci Dakar Dem Dikk wax dëgg yàlla maa ngi gërëm di sant waa Kédougou parce que ñoom ñoo ma élire maire balaa may nekk DG Dakar Dem Dikk mais xam nga lenn rek la euh, soo gisee réew mi suñ ko naree taxaw dinañ fi taxaw fu ne hmm. lu nga bëgg def mun nga ko def mais benn nit rek mënu koo def équipe la donc soo amee équipe bu dëgër bu nga xam ne ni mun na mun na décliner sa vision bi incha allah di nga réussir te loolu lañu nekk di def Kédougou ñu ngi def ay investissement yu bëri xale yi ñu ngi leen di euh, jàppale pour ñu am liggéey ak yeneen ak yeneen jigéen ñi ñu ngi leen di jàppale si seen groupement de euh, vraiment fu ñuy yëngatu donc loolu yëpp mooy wane ni soo buggee dara mun nga ko def gëm naa ni tey sénégalais bu nekk mun na taxaw pour dëkkam bi jëm kanam mais en même temps taxaw pour Sénégal jëm kanam. tey gis na koy apprécier le fait que mu choisir am. lenn la soo gisee président Macky Sall lu mu def ci réew mi bëri na loolu donc loolu yëpp mooy wane ni tey kooku excellent président la président bu nga xam ne ni am na vision am na lépp kooku su mu demee ba tànn Amadou Ba ñun ñëpp dinañ nekk ginnaawam loolu moo tax organiser ñu benn meeting bu rëy bu nga xam ne ni Kédougou lañ ko defee wane ni Amadou Ba ñëpp ñu ngi koy jàppale te incha allah dinañu gagné au premier tour incha allah le 25 février 2024. fan yii amoon na ba waaw xam nga euh, coow boobu toujours mu ngi si loxo justice bi euh, classé wuñu ko ñu ngi koy topp parce que man dama gëm ne ni tey Sénégal euh, lu nga xam ne nii moomeel askan wi la fu mu war a jaar war na ñu teg ko ci yoon donc loolu laa yëngatu ci loolu laa koy def te incha allah dinañu élèr établir lu nga xam ne ni mooy dëgg bi te dëgg bi su génnee après incha allah sanctionné lu ñu war a sanctionné dañu leen di sanctionné te dama gëm ne ni Dakar dem war na jëm kanam loolu moo tax tey augmenté nañu suñu recette plus de 45 pour cent réduire nañ suñu charge yi loolu mooy lool yëpp parce que liggéeykat Dakar Dem Dikk ñu ngi siy taxaw te dinañu si jàppale incha allah pour ñu jëm kanam. merci maa ngi leen di nuyu jërëjëf merci beaucoup merci.